koor gi koor gi koor gi koor gi koor gi moom métti na ba si kanam yàlla. de. léegi lu dul ay gooy ay cuuraay nekk. damay naan sama yoon nekku ci. damay naan ba ci ba Masamba di ja Demba ah! kii sam papa ah day raxas gémmiñ taxaw foo ko tufli tufli ko fii yow de sam eh toogal sama yaay tey su la jàppee yow ah da ngaa lob ndox yow de su ma la duul duulal yow tey ji lu ma la wax ci biir ko gëm dama doon dama doon jàpp yow eh, eh. eh jàpp yow da ngay jàpp dimbali dinaa la neexal dinaa la neexal sama nday tay mu dee xale bi gën a mën a fen ci àddina il faut ma tëj nday nday gémmiñam sa nday gémmiñ gi laay tëj yow tey moom damaa xiif koor gi métti métti lool fekk baal sa téléphone bi heure ndogu léegi mu jot de macha allah xaaral ma préparé meew bi chocolat yi na nga koy yebbi wuy ma jëkkër tàndarma yi jëkkër lu ma sa mburu yow loo sentir baax laaj jëkkër laaj ma. man kii wóor lay laaj waaye ku wóor aw ma ci yow soxla. waaw yow tey papa bul de baax yow kilifa gu toll yow. dugg eh, si eh, di néegi eh. di naan ndox. man damaa woor de damaa woor de. <laughs> eh sa génn gi laa nga. fermeel ma ko damaa bëgg nga dimbali ko li ngay ñàkk fayda ni borom kër guñ dab di ko ñan yow lii mbaa sa jàmm yaram la. lanati la yow mënoo daal. yow war ngaa naan ndox sa doom di la bee. laa illah kan man. gëm nga kii fenkat bi ah! kii yaa ko jur waaye xamoo ne mel kii da nga kaa weccee as war naa de te eh, papa woor nga dimbali bu yemoon nga jug dem toogee ne ca bande tous ba jàkkaar ak ñun te xam ne doo def bii bande tous sax xaa may la nga jàll sa tous ba sa tànk yi sekk sekk wax dama bu ci wax ndax danga jom yow ji ñëwal. ba nga waxati ma tata di ma toja adama laa mag ah. yaay sama kilifa. maa sa kilifa. toogel ne doon des koy jëfee. Mm-hmm. lu mën a demee dee ko a dikkee dee ko jëfee. yow moom yow moom sa seytaan bul wax bul bul wax jugal yàlla dalaa def ngay woor di sellal. Eh, compil jugal waaye su ma sañoon am papa jugal ni eh, man nangu naa waaw damaa naan naa waaye léegi jox ma ñëwal ngay tufli suñu mburu ndog yi nii rek. nangu naa nangu naa damaa ñàkk jom comprendre ma rek yow comprendre ma ma def su la leeree ni doo ndogu muy sa jàmm kon xanaa cooki fey na. partage leen la. tegal. wala lan laa ci bañ. ñu ne cuuj na jëkkëram paakataan. nga ne paaka dama kaa mos a ragal. yow lan la <laughs> yow sa tax mooy tax suuf day neex a dugg balaa ñu laa cuuj ci sax. irresponsable te bay bëgg a dee. ah xalaat ñii ngeen di def eh, eh. jugal balaa ñu laaj tuuti taat. liay liay lil. eh chocolat nga palaasam. gis nga xam naa yow ki yàlla dig paaka taat. sambara kit yaa ngi nii jëlal bu ko fi baax. looy def yow café au lait wala. café gu la neex rek man. man kaas bu mag bi wala bu ndaw bi. bu ponkal bi yow da nga riis gën a mag kër gi rek. Mhm. man defal ma ñaari kaas sax. bàyyi ma def marron ak blanc. waaw jëkkër laal ji marron ak taas bu blanc ak bu blanc. yow tàndar ma sax doo ko jox mi ko. Euh, defal ma kii. meew wi. est laa nekkee sa papa. baal ah, sama yaay. xamoo man yii day daw sama yaram. mais kilifa nga. Eh, bu daw sa yaram de. ma dañ laa dàq nag. góor góor na dem ni